من دلاله وبالألال خلص راو خني دابا قل الكتابا واقبل متابا يا سسرا خني دابا قل الكتابا واقبل متابا yaa sa sirai bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan noo ngi leen di nuyu di leen di leen balo ak di leen ko baal di am mbégte di yëkkatiwaat ay kàddu fii bu ngeen jàkkaarloo ak jataay bii nga xamante ne bii at mu dana am benn yoon ci at mi muy jataayub fàttaliku waaye jataayub ñaan waaye jataayub sant kan lañ koy defal moo di Serigne daam Touré moom seriñ Serigne Touba Xaadimu Rasul bis boobu nag moo war a dëgg malaat sëtam bu baax bii di El Hadj Nis Touré ko ak njaboot gi yëpp fas yéene ko amalaat le 10 mars di amee ci kër ga nga xam ne moo nekk ca Sura bis boobu nag moo tax ñu toogaat tey jii di ko def nag ci ndigalul ki fi toogal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ñuy ñaan sun borom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram waaye di ko def nag ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Souhaïbou waye nak ci njitu serigne Abdou Samad mi nga xamantene bi moy mooy lalu kër gi lolu motax serigne ni stock ay ay rakam tok ak magi taalibe yi tok ak njabot gi yëpp ak ay xaritam fas yéene bi. bokk jëlé li bokk talibé yi ñu ngi waat suñu kaddu ci turu serigne Nis Touré ñaan mu yagg fa lool te ànd ak wër serigne bi nee mi ngi wo serigne Ousseynou Fall ci pelen dedd ak wa ngebal wa pelen dedd gep nee mi ngi wo serigne bacci cham ca bayax ak waa bayax gépp sëriñ Aliou Tine Fisel Mbadaan ak waa Fisel Mbadaan gépp nee na mi ngi woo sëriñ Ndam Deer Gëti Omar ak tundi euh, tundi Kajoor wépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ maam góor Badiane ak waa Mbadiane gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Fall ngébbal ak waa ngébbal gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Ousmane Touré ca Touré ngën ak waa Touré gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Baddo Mbay ca sabb ak waa tund Romnaan gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo Samba Fall Argentine sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal Mortara Fall Argentine di ko yëgal soxna Ayda Gueye daayira Maam Jaara Cotonou Bénin ak sëriñ Mamour Dramé Touba Lomé di ko di ko di ko yëgal sëriñ Mourtala Gueye ca Touba Niger di ko yëgal bokki taalibe yëpp bàyyilu kenn bàyyilu fenn bàyyiwul ñenn. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di am mbégte di teewaat ci kanamu sunu kilifa alxaaji Serigne Miss Touré xalifab Serigne Souhaïbou Touré moo am mbégte di leen fàttali bis boo xam ni xam na ni kenn ci yéen fàttewu ko waaye alxuraan moo ñu santoon di leen fàttalekat ndax fàttale dina jariñ gannaaw bu mu ci amee ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ni ñaanal mu yàgg fi te ak wér. am ci ndigalul sëriñ Ibrahima Touré xalifa sëriñ Aliou Touré barikàlla am ci ndigalul sëriñ Ñamra Touré xalifa sëriñ Daam Touré ci kilifteefu sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Soxay bu muy buntam ci kër sëriñ Soxay bu ci sëriñ Touba tamat ko sëkk sëriñ bi nee na mi ngi jiital woote bi ak fàttali gi daara yi kaamil alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp di ñaan it niñ ko daan defee rek lim buñ ci jàngoon jotal ko ko wala jotal ko njaboot gi nee it mi ngi ci eh, beral ab Eh, ki nga xam ni Serigne Touba ko tànn di ko liggéeyloo ba tax ku fi nekkal Serigne Touba mu doy la tax muy Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadar di seriñam di xaritam di wëllëreem te seen diggante yàgg lool te ñëpp xam ko di ci beral ab woote it Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Souhaïbou waaye di ci beral ab woote it Serigne Fallilou Mbacke moom Serigne Souhaïbou di ci beral ab woote it eh, Serigne Mbacke moom Serigne Khadim Ba di ci beral ab woote it eh, Serigne Fallou. loo xalifa sëriñ Maxtaar Bintoloo ji beral ak woote it sëriñ Ibrahima Fall ak njabootu sëriñ Abdul Karim Fall gépp euh, di ko yëgal mboolem njaboot suñ tubaab gi yëpp rek di ko yëgal it euh, ci njiitul fédération sëriñ Aliou Touré Barikalla ci njiitul sëriñ Xaadim Touré di ko yëgal mboolem njaboot suñu Aliou Touré gépp ak fu ñu mën a nekk euh, di ci beral ab woote it monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak soxnaam soxna Marème Faye Sall. ak premier ministre Mouhamed bin Abdoulaye Dionne di ci beral ab woote it ministre Ali Nguy Ndiaye ministre de di ci beral ab woote it euh, ministre Omar Youm euh, directeur cabinet di ci beral ab woote it euh, gouverneur de la ci beral ab woote it Serigne Abdou Lahad Diakhate chef du village bu Touba waaye di ci beral ab woote it Serigne Abdou Lahad Ka maire bu Touba. ci beral ab woote it xaritam monsieur Moustapha Cissé Lo premier vice président assemblée nationale. di ko yëgal it ma Madické Niang di ko yëgal it euh, président Idrissa Seck. waaye di ci beral ab woote sëriñ euh, Serigne Serigne Abdou Lahad Mbacké moom ak mboolem njaboot Serigne Touba yëpp rek. bokki julli di fi bokki taalibe maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di yëkkati sama kàddu ci ndigalu Alaaji Sëñ Nis Touré di yëkkati sama kàddu ci. ndigalul jigéen ñi kàddu jigéen ñi sëti sëñ Dame Touré yi ak soxna yeeg taalibe yeeg ñëpp rek di woote bés bu mag muy sunu bés di bésu sëñ Dame Touré bés bi nag di bés bu rëy lool ci nun nu doon ko waajal ba yàlla dogal ma agsi ci jàmm nu fas yéene ko waajal di woo jigéen ñi daayira Cheikh Aliou Touré baari kàlla bi noo ngi leen di woo buñ tuddee soxna Mati Touré moom sëñ Bàcc Touré tudd na ñëpp di woo daayiratul daaru salaam sow bu kennal sëñ Xaadim Touré kennal sëriñ Touba di woo daayira waa Mbusoobe bi sëñ Amar Mbay jiite jigéen ñi maa ngi woo ñu bàyyi ma kenn di woo daayira soxna maam Jaara Mbàkke ba ca koñ ba tubaa sura te mu ànd kook soxna Ami Mbay di woo daayira na Xaar Ndaw ak jigéen ñi ñëpp rek di leen soññ di leen soññ ci li ñu weesu di leen sant ci li nu weesu di leen soññ ci li nu dëgmal nu defe ko nan ko daan defee. jërëjëf mbokki jullit yi mbokki jullit yi jërëjëf mbokki taalibe yi ñoo jot a dégg woote baa ngi noonu bisub Serigne Dame Touré borom bari kàlla Serigne Touba mag ñi rek na joxal gone yi kon day mel ne xéewal gone yëpp bari kàllaam joojee moo ko fi indi ñu ñaan soon borom mu fayal ñu ko. loolu moo tax sëtam bu baax bii de alaaji Nis Touré at mu jot mu am bis boo xam ne da ciy fàttaliku cantam googee mu daan def Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy jital ci wota bi nak ki yàlla tek ci bop yoonu murit te koy ñaanal yàlla yagal ko fi lol doli wërem mu di Serigne Mountakha Mbacké mom Cheikh mahamadou Bachir waye di ci tek nak Serigne Abdou Samad mi nga xamne moy buntam ci Serigne Touba mom Serigne Souhaïbou Serigne Bachiru Mbacké mom Cheikh abdou Khadir mi nga xamne moy rek kaddu Serigne bi waye Serigne Sidi Mbacké mom Cheikh abdou lahad Ahad jëwriñu yoon wi Serigne Ibrahima Touré khalifa Serigne ali Touré Serigne Ñomre Touré khalifa Serigne dam Touré aladji nis Touré khalifa Serigne Souhaïbou Touré ak rakam yep nak mu di ko yëgal nag Serigne Abo Mbacke xalifa Cheikh Mahamadul Fadal Serigne Cheikh Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Khadir di ko yëgal Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Souhaïbou Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Mahamadou Mourtala waaye di ko yëgal Serigne Moustapha Mbacke moom Alhaji Mouhamadou Lamine Baara Serigne Abo Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Serigne Moustapha Mbacke xalifa Serigne Abdoul Akaram Serigne Abbas Mbacke xalifa mam Thierno borom Daarul Moxti Serigne Abdoulahi Mbacke yàllaay buur xalifa Maam Mor Diarra Serigne Moustapha Mbacke xalifa Serigne Massamba Serigne Mor Fati Mbacke xalifa maam Cheikh Anta Serigne maam Mor Mbacke xalifa Serigne Balla Coro ak mbooleem njabootuk Serigne Mbacke Mor Anta Sali gépp di ko yëgalit njabootuk Serigne Ibrahima Mbacke Mbacke Kajoor di ko yëgal Serigne Moustapha Mbacke xalifa Serigne Baara xalifa Serigne Sidi Muxtaar Mbacke di ko yëgal Serigne maam Mor Serigne Mor May Mbacke xalifa Serigne Cheikh May di ko yëgal Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général de Baye Fall ak mbooleem seexi Serigne Touba yi di yëgal Serigne Abdou Latif Jenn xalifa Serigne Issa Jenn Serigne Sidi Sarr xalifa Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Sidi Jenn xalifa Serigne Naar Jenn Serigne Baara Touré xalifa Serigne Mor Fati Touré Madina Serigne Babacar Ndiaye Xaadimu Rasul Taïf Serigne Abdou Touré xalifa Serigne Aliou Mati Touré Seew Serigne Abo Touré xalifa Serigne Abdoul Karim Touré Serigne Jibril Touré Touba Belal Serigne Mbaye Fall xalifa Serigne Modou Fall Xonn Baye Cheikh Aliou Touré xalifa Serigne Mbacke Touré Seew Serigne Cheikh Bey xalifa Serigne Mor Ma Bey Serigne Abdoulatif Jenn xalifa Serigne Mbacke Jenn diko yëgal sëriñ Fallou Bousso khalifa sëriñ mbake Kanni sëriñ Omar Bousso khalifa sëriñ mbake Bousso sëriñ Moudou Mamoun Bousso imam Touba sëriñ abdourahman Niang khalifa sëriñ Baara Niang sëriñ Khalil Sall khalifa sëriñ bay serigne sar diko yëgal sëriñ Abdoulahi Diouf khalifa sëriñ tierno Diouf lambay ak sëriñ Sohaibou Diouf ak mbollem cheikh yi aji ci keur sëriñ Sohaibou yëpp yep neena bayiwul kenn diko yëgal sëriñ moo Fall Mbar mom sëriñ Moudou Aminta Fall sëriñ Cheikh oumif khalifa serigne tala sek jamweli Serigne Modou Mbacke si xalifa Serigne Moustapha si Serigne Mbaye Baas soldaaru Serigne Touba Mbacke Baas Serigne Mbacke Ka xalifa Serigne Moussa Ka Thielly Serigne Mbaye Guèye xalifa Serigne Mabé Guèye Serigne Ahmadou Diouf xalifa Serigne Modou Diouf Lambaye Serigne Modou Mbacke xalifa Serigne Cheikhou Sala Mbacke ñu ngi yëgal itam Serigne Galas Ndiaye xalifa Serigne Mbaye Ndiaye Banji Serigne Thierno Diaw xalifa Serigne Mut Diaw Paxa ala Serigne Alhaji Fall xalifa Serigne Thierno Fall xonn sëriñ Fallou Sylla xalifa sëriñ Makhtar Sylla di ko yëgal it sëriñ Moustapha Bassirou Lo di xaritam di kenn ci kër gi waaye di yëgal nag njabootuk sëriñ Souhaïbou bu jigéen gi ak njaboot Cheikh Abdoul Ahad gi bàyyiwul kenn ba ci njabootuk Cheikh Salihu gi soxna May Abo bintu sëriñ Souhaïbou soxna maam Xari Mbacke bintu Cheikh Abdoul Ahad soxna maam Dieng Mbacke bintu sëriñ Souhaïbou soxna marem Marème bintu sëriñ Souhaïbou soxna Ummi Mbacke bintu sëriñ Mouhamadul Fadal soxna Nday Soda Mbacke bintu Cheikh Mouhamadou Mourtala soxna maam Fatim Mbacke Nawel bintu sëriñ Souhaïbou soxna muslim Mbacke bint Serigne soaybu soxna maam Mati Mbacke bint Cheikh Mamadou Fadal diko yëgal soxna mam Fati bint Serigne soaybu keur Serigne Modou Habib soxna Muhsinatu bint Cheikh Abdoul Ahad soxna mam isa Mbacke ahlu Café soxna bint Mbacke bint Cheikh Mamadou Fadal soxna Aida Bousso bint soxna Khadi khadim Rasoul soxna Oumy Fall bint aladi Abdoul Karim Fall soxna Kiné job mom Serigne Sidi Mbacke mom Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Soda mom Cheikh Mamadou Basir neena bayiwul mbollem setti Serigne Touba yi diko yëgal itam waa Kansul Muhtadin di soxna Astu Mbàkke moom Serigne Abdoulahi ak mbooleem ñi mu jaboote ñëpp di ko yëgal mbooleem daayira yi nekk ci Sénégal nag rawatina daayira yi nekk ci biir Touba mi ngi ko yëgal daayira Mawaahibu Naafi waa kër Serigne Daam Touré daayira Miftahul Muna waa kër Serigne Souhaïbou Touré daayira Xidmatul Xadim kër Serigne Souhaïbou Touré daayira Borom Touba jërëjëf ci njiitul Serigne Mor daayira ahlu kennal Serigne ci njiitul Serigne Xaadim Touré kennal Serigne Touba daayira Oustaz Mbay Touba maçon Mbusoobe section Touba fédération Cheikh Aliou Touré barikàlla ci njiital Serigne Saliou Samb ak Serigne Ale Niang Serigne Nis daal nee na mi ngi ko yëgal mbooleem koo xamante ne bii Serigne Touba moo joxoon sa ñaak ba mu yor nee na bis bii mi ngi la ko yëgal di ñaan ñëpp ñu àndandoo ak moom. sant le ko tubaa Touba ci bis boobu nga xam ne ci la Serigne Dame Touré daan sant Serigne Touba Xaadim Rasul bàyyee ko jaboot gi muy jëwriñ ji di ko taxawu ànd ko kilifaam yëpp nee na mi ngi ñaan bis booba ku fa teew yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo adduna ak jooj alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. amiin amiin.